nataalu ñaareel bi xibaar yi ngeen di dégg ci téere yàlla bi la jóge téere boobu mooy kàddu yàlla mu ngi ñu ciy wax boppam ak yoon wi mu tëral ay mbind yonent yu ñu xam ñoo ci nekk yàlla jaam yépp la bëgg téere bi danañu wax lu waral yàlla tàggoo ak nit ak yenn pexe la tëral ngir delloosi ko ci wetam moom miy baay bi di xarit bi téere boobu mooy bible bi